am ci sa gis-gis tey jubawoo ñu parce que tey ni nga taxawee nii bëgguma ko mais c'est pas grave sa gis-gis la je respecte <laughs> ah, donc euh, ñeel présidentielle bu 2024 euh, candidature Malick Gakou euh, gis nañ ko nag ndaje bu am solo mu amal ni kii fecce si CICES mbooloo bu bëri daal di koy wuyu si naka nga gisee candidature am mais écoute c'est le normal yow mi sax man doon xaar sa candidature Penda Mbadji. <laughs> non man sama déposé kenn ma voté. ah mais ah mais awa <laughs> ah, mbooloo. awa ah, bul wax loolu. awa ah, mbooloo non loolu non bul sa bopp droit d'être candidat. c'est droit constitutionnel qui est conféré tous les Sénégalais. Mm. bon nekk na candidat yàlla na ko yàlla may mm-hmm. par rapport ak mbooloo bi. c'est frère euh, bu ma mm-hmm. bon maintenant li des nag liggéey la. Mm-hmm. proposer lu bees. waaw loolu foofu lay xaar man candidature am quoi du tur wi propositions yi lay xaar parce que nag fondamentalement booy lëñtu les propositions des partis politiques sénégalais wala des candidats c'est les mêmes propositions. ñoom ñëpp proposition boobu sax voilà bëgg am sa appréciation. ñoom ñëpp c'est des c'est des euh, <laughs> li li étatiste maanaam ñoo xam ne dañ jàkkaar ne état moo war a moo war di buur di bummi gëmuñu gëm gëmuñu liberté nit ñi. voilà ni ñu yore woon réew mi ba léegi deux mille neuf cent soixante-deux ak léegi pratiquement gars yi bu ñu proposé boo gëstoo ba ci biir rek euh, continuité la ñuy proposé mais indiwuñu rupture dans la gouvernance du pays ñu rupture ci changement des institutions de la république indiwuñu rupture ci école bi ban école lañ war a tabax indiwuñu rupture ci décentralisation duñ indi pro euh, rupture ci wàllu koom gi ñaare ay critique moo ci ëpp ci ay propositions yoo xam ne mën naa faire avancer le Sénégal e ça, c'est dommage, malheureusement, parce que la classe politique sénégalaise, d'une manière générale, euh, c'est une proposition, ça repose, un, sur le culte de la personne. maanaam kenn ku si <laughs> candidat bu ne wane ne yow mën nga résoudre problème yëpp ce qui est bi des aussi ma jàpp ne état moo war a nekk fépp alors que man jàpp naa ne réew yi développé ci àdduna yëpp ci. Euh, lañu la ñu gën a góorgóorlu mooy fexe ba le rôle central bi nga xam ne état daf ko yor ci développement réew ñu transféré ko ci secteur privé bi mm-hmm. et je crois que malheureusement gars yi kenn ku ne buy wax rek boppam lay wane waaw ñu ne kii moom moo moo gën moo ëpp xam-xam moo gën a nangam nangam alors que problème bi du affaire nit am nañ fi Senghor loolu lañ doon am en 1960 naan Senghor su ko ndee la bu ñu ko joxee réew mi nangam nangam yor na réew mi fu mu fu mu mujj Abdou Diouf ñu waxal ko la même chose Abdoulaye Wade ñu waxal ko la même chose Macky Sall la même chose donc problème yi nekkul problème mu nit. c' est la du Sénégal qui doit fondamentalement changer par exemple lu wér mooy. boo xoolee diggante 2000 ak léegi ci 22 ans yi jàll. Sénégal yokk soppiku na fi lool ci wàllu infrastructure loolu ñëpp d' accord nañ mais ci wàllu nite gi tabax citoyen bu bees tabax républicain bu bees. kooku des na des na lool bi tey mooy boo xoolee euh, la république la séparation des pouvoirs pratiquement tur wi rek moo fi nekk mais en réalité amul parce que boo xoolee depuis 62 benn pouvoir moo am Sénégal muy le président de la république. Mm. je crois que man dama doon bëgg euh, ñi nga xam dañoo bëgg nekk candidat ñu proposé ne bu ñu faloo maanaam ñu proposé programme boo xam ne day wàññi doole président de la république di yokk doole assemblée nationale di gën a jox justice boppam. je crois que lu mel noonu man foofu laay ay ay ay candidats yi et non ay tour parce que tour moom tour moom ñëpp am tour. d'accord ci loolu également ginnaaw ba ci présidentielle lañ taxaw euh, gis nañ tamit Mbour investir nañu ki nga xamante ni moo di président Macky Sall. ñenn ñu def loolu. waa Mbour. Ah <laughs> ci teewaayu ki nga xamante ni. <laughs> moom mooy <laughs> coordonnateur communal benn bokk yaakaar. Ah. di Cheikh Issa Sall ñoom. Ah, investir nañu président Macky Sall pour la pour la présidentielle 2024. am na ci droit xam nga man Penda moi je suis un démocrate man moi je suis xam nga man ni ma contrer troisième mandat am sañ-sañu wax ko laa jàpp ne ñeneen ñi bëgg mu am troisième mandat aussi am nañ droit yi ma am moo tax d'accord ma ci baatub troisième mandat moo jàmm a gën troisième mandat d'accord ma ci ba nga ko waxee parce que ça c'est un mm. xam nga li ma wóor mooy affaire troisième mandat Macky Sall ñett ñii rek la concerné dëggantaan nag Macky Sall su bëggee bokk kenn mënu ko tee bëgg a bokk su conseil constitutionnel ne day bokk kenn munu koo tee bokk waaye li ma gën mooy Sénégal yi bu ñu soxlaatul Macky Sall daañ ko daane suñ ko soxlaa daañ ko fa laat parce que nag quand bu ñu ko fàtte 2011 président Abdoulaye Wade ñun dañu wàcc mbedd mi ne bu mu am non au troisième mandat teewul Abdoulaye Wade nekk candidat ndax conseil constitutionnel moo nangu waaye ba ba mu bëggee bokk conseil constitutionnel ne ko da bokk ba mu bokkee teewul Sénégal yi que Sénégal depuis ñaar fukki at ak ñaar yi weesu waree na ne ci ku ñu bëgg ku ñu doyal ci yow daañu la folli parce que ñaari at ñaari ñaar fukki at yi daane nañ ci ñaari yoon président fal ci ñaari yoon président bu mujj li ci mujj mooy élection législative yi jàll waree na ne Sénégal yi képp koo xam ne soxlaatuñu la dina ñu la man a du ñu la fal. kon daal dama jàpp ni kon xaaral ma encore une fois li goo xam ne. nañu toog seetaan te xam ne askan bi ñoom dinañ décider. mooy son principe parce que man 2012. yi nga xamee ne euh, conseil dafa valider la candidature de président Abdoulaye Wade man dama ba président Macky Sall ne ko loo loo programmé demal nga defi campagne parce que mënatoo ko mënoo ko tee bokk. mu dem defi campagne Sénégal yi jox ko réew mi encore une fois li ma jàpp mooy képp ko xam da ngaa bëgg Sénégal jox la réew mi 2024 li nga war def mooy defar programme ak programme projet de société ak programme de campagne. je crois que loolu moom parce que li tax mooy xam nga boo gisee ni ci institut 2013. 2001 2011 pardon fukki nit ak ñett dañoo faatu ci non au troisième mandat teewul Ablaye Wade nekk candidat mais taxul mu gagné kon ma jàpp ne ña dee mënoon nañoo bañ a faatu. d'autant plus que dem nañ ba yàgg ba ci mujj gi ay ay politiciens yu bokk yu contre Ablaye Wade 2012 naan ñoom xamoon nañu Ablaye Wade daa war a bokk nga xam ne Ablaye Wade warut a bokk. nga woo nga woo ay nit ba fukki nga ñeenti faatu ñetti faatu. c'est inacceptable c'est inacceptable kon encore une fois man dama jàpp ne la nous dans une démocratie le débat euh, politique doit être tranché de manière démocratique autrement dit sénégalais man gëm naa ne képp koo xam ne bëgguñu nga yor seen réew. muy mag Sall muy keneen bu su élection bi jotee mën nañu laa daal. c'est le plus important Sonko et son nemmeeku tour euh, gën a waajal euh, présidentielle bu 2024. mais am na am na ci droit li mu droit mooy dugg cib département te waxul ak préfet bi c'est tout cest toujours dans le cadre du respect de la réglementation et de et de la République parce que li ñu wax ci sañ-sañ sañ-sañ bu ne dañ ko limité ni fii nga sañ-sañ yi lii la fii la yem su fekkee yow da ngay dugg ci département. war faa def ay activité politique da nga war a informer oh balaa nga faa dugg l'autorité administrative ne ko bëgg naa faa ñëw bis sàngam bëgg naa faa def lii ak lii fii laa ko bëgg a def bu dee woote woo ak xaar maagal rek bu ko defee moom mu na ngay aviser préfet bu dee woote woo bu dee woote woo ak ab ab meeting da ngay def rek ak doxu nemmeeku mais doxu nemmeeku loolu comme nga dem seeti say mbokk parce demal nga liiri code pénal encore une Penda demal nga liiri code code boo ko liiree li wax ci mbirum convoi ak yu mel noonu ci mbirum ci wàllu politique dafa leer nañ soo ko bëggee def da ngay wax l'autorité administrative ne bëgg naa fee ñëw di fi telle activité politique ak foo ko mën def même ci nga wax bu ko defee moom mu jëli matuwaayam ne serait-ce pour ta propre sécurité parce que nag bu fekkee dañoo bëgg nekk cim réew am réew tëral ay yoon ne lii fii la nit ñi war a jaar yow ngay dëgg rëgalu bopp ne du ma jaar dama jaar ci ci ci ñàll wi loolu dal ci ñàll wi yaa ko teg sa bopp encore une fois am na droit def euh, nemmeeku tur parce que loolu yoon moo ko may yoon wi ko may nemmeeku tur ne moo ko wax ne ko ko def voilà lii nga war def kon ñaar ñaar yi ngay boole waaye mënoo jël li la yoon may rek bàyyi li la yoon tere boo ko defee du sotti. ca coupe du monde bi ñu nekk nii nag euh, barke démb match euh, Sénégal euh, ginnaaw defar benn ci am suñu diggante ak Hollande Pays-Bas donc ci loolu ñu gis fa nag beneen mbir bu nga xawante ni daanaka sax dafa xawoon détourné un tout petit peu nit yi ci match muy présence su Karim Wade gis nga ko ci image yi. mais li jaaxal nit yi mooy lu tax Karim Wade bu mu ñëwee ca stade ba demul saafonto ak président Macky Sall. ah ba da nga yaakaar ne lu fi Macky Sall nekkoon moom ku mu nga ñëw fa yéeg saafoon dégg nga. xëy na su ko bëggoon gis du jafe. waaw mais d' accord mais bon xëy na peut-être gisee nañu ah. du ma sori mais fa Macky Sall nekkoon moom foofu invité invité du roi ñoo fay nekk. du sax